asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam di ñaanal cheikh mouhamadul muntaka mbàkke xalif général di murit yàlla na ko fi yàlla dolle yàggal te dolli ko wéral di nuyu bu baax mbooleem waa réew mi yépp ginnaaw bu nu nuyoo xalif général di murit ñaanal ko jëf ju réy ji nga xam ni moom la jëf te yàgg jëf jëf ju ni mel muy dimbali askan wi dimbali taalibe yi saa soo xamee ni jafe-jafe am na bu dee ci wàllu baatin gis ngeen sëriñ bi jàngalu na kaamil alquran jàngaluy xasida salaatu ala nabi ak istixfaar waaye bu dee lu jëm ci wàllu saayir ngeen gis sëriñ bi yëkkati alal ju takku def ko ci dimbalee ko taalibe yi loolu nag ci actualité bii ñu toll ginnaaw bu nu ñaanee sunu borom jeexal feebar bi ci ni ko Cheikh mu Mountakha ñaane ak njabootu sëñ Touba gi ak mboolem kilifa diine ci réew mi yépp muy coronavirus ñu di ko wax Covid 19 muy maladie boo xam ne bu doy waar la maa ngi yëkkati nag sama kàddu ci turu tous les communicateurs. traditionnel yi nga xam ni ñoo nekk fii ci Touba te ma jiite leen Modou mbay Touba ngi nii ci sama wet ñuy def déclaration boo xam ni ci turu communicateurs yi mu ànd ak sensibilisation mu mel ni euh, président de la république ginnaaw buñ ko jaajëfale bu baax ci taxawaayam bu rafet ci bi feebar bi amee matuwaay yi nga xam ni jël na ko ci ci dimbali askan wi ñi ne ci biir réew mi ak bitim réew jox ndigal ministre de la santé mu am ci matuwaay yim mu war a jël yépp loolu nag nun ñu féete fii ci Touba dana ci sant autorités yi nga xam ni ñoom lañu féeteel tàmbale ko ci gouverneur de la région ci taxawaay yi nga xam ne am na ko ci région bi yépp waaye nag wàcc si ci le maire Abdou Lahad bi nga xamee ni mbir mi am na day sëriñ Mountakha Mbacké yëkkati deux cent millions jàppale ko état bi monsieur le maire Abdou Lahad Ka yëkkati na moom itamit dix millions ci turu commune bi waaye yëmu ca mu yëkkatiwaat yeneen dix million ci turu opérateur économique yi participer waat ko te loolu jotewul dara ak social yi nga xam ni mi ngi koy def ci lu ñu yëg ak lu ñu yëgul ñu koy sant bu baax di ko gërëm mais yëmu ca yit mu woo communicateurs yi recevoir leen jàppale leen yëkkati ay moyen débloqué ko ni dafa bëgg ñu wàcc ci terrain bi def ay sensibilisation waaye nag sóoraale ci këru docteur nim ko santaanee ni ko këru docteur santaanee nag loolu sunu ndimbal na ñun ñëpp malgré alhamdulilahi rabbil alamin ñaanu sëriñ bi seroka ci Touba waaye nag loolu dafa war a tax ñu gër a gën a takkuwaat ci laxasaayu ndax maladie boo xam ni wax nañ leen ko ki ko yor du ko xam diirub 14 jours mu door a développé ci moom te ki koy wàll du yëg ni mi ngi ko koy wàll kon nag loolu su këru docteur yi ne distance yi un mètre nañu yor ay masque ci yenn milliers yi waaye tamit nañuy raxasoo savon moo xam saabu ordinaire wala modaar wala eau de nañuy yor itam li nga xam ne mooy sel bi di ko garde saa su jot su fekkee yaa ngi nuyoo nit jox la loxo te fekk daf laa rëcc gaawal laal sel bi waaye nag nuyoo nañu fàttaliku ni asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu benn nuyoo gënu koo màgg nuyoo am na sax ba ci làkk yi ci des gis ngeen ko bu ci nekk am na nuñ ci nuyoo waaye joxante loxo bi nañ ko moytu ak jaxasoo bi nañu moytu itam dajaloo ci marché yi ak yenn place yi ndax loo xam ne dem nañ bañu ni jumaa ji sax ña fay julli dañ leen a limité organiser leen ba nga xam duñu jege wantew kon loolu lu mat a sàmm la lu mat a sóoraale la li ci dolli ko itam ci Touba am te cas yi da ngay ñu ni wala ka contact wala ka euh, Euh, comment kaa euh, communautaire ñu baal ma cas communautaire yi li koy indi mooy koo xam dafa ramassé maladie bi te xamul fan la ko jëlee cas contact mooy ki jaxasoo ak ki nga xam ni mooy kaa importé bi jógee bitim réew indi feebar bi ñamu jaxasool loolu mooy cas contact kon nag cas contact yi ak kaa communautaire yi li tax bii yombuta lijjanti mooy bu dee cas importé bi xam nañu ki ko yor parce que bu dee étranger Man nañ ko mettre à quarantaine quatorze jours xam feebar fu mu toll su dee cas contact yi ñi mu contacté man nañ leen identifier mais cas communautaire yi moo nekk problème te loolu ñoo ngi koy dégg ci réew mi kon nag ñun ñi nga xam ne dañoo féete ci Touba ñoo ngi yëgal population bi ni nañu gën a sàmm seeni jéego wàññi ko téye seen bopp en même temps aussi tamit gën a waay bàyyiwaale xel këru doctor li mu santaane ndax moment bii ñu ni seroka ci la ñu war a gën a laxasaayuwaat gën a moytuwaat ñu ngi sant nag bu baax a baax a baax le préfet di Mbacké sous préfet arrondissement Ndam waaye di jaajëfal mboolem autorité yi rawatina nag chef de district bu jéemul nekk chef régional kooku mooy docteur Dieng ci taxawaayam ak ci ay jéegoom ak ci engagement am ñoo ngi leen di xam ne daal au nom des communicateurs traditionnels de Touba association bi nga xam ne ñun ñoo leen jiite combat bi bi mu tàmbalee muy maladie bi ñëw def nañu ay sensibilisation ci rajo yi wàcc nañu itam ci terrain bi def ay visite proximité jël ay produit wu tamit ci li nu man suñu kem kàttan jàppale ko askan wi waaye duñ ca yem nag incha allahu rabbi fépp foo xam ne jàpp nañ suñu kàddu dana fa mën a àgg des na ko fa àggale ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di ñaan feebar bi yal na ko yàlla jële ci réew mi ci barke Serigne Touba euh, am na kilifa goo xam nag mënuñu ko bañ a remercier muy sëtub maam Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Fallou Fall ndax gis nañu taxawaayam ndax moyen de communication ku la ci jàppale gis nañu ni wax dëgg yàlla yaa ngi yaatal yaa ngi sensibiliser te bi mu yëgee ni dañu war a def ab déclaration daf ñu wax ni euh, man de sama site internet bii. jébbal naa leen ko woo caméraman bi boole ko ak ñun kon nag loolu ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm waaye nag ñu ngi ci tàllal loxo képp koo xamee ni da nga yore ab euh, site internet mbaa nga yore benn organe de presse boo xam ni di nga mën a def moyen de communication ba suñu message di jàll ñi nga xam ne ñoo yore rajo yi sant nañ leen gërëm nañ leen muy directeur yi fi nekk yépp chef de station yi waaye ñi nga xam ne itam ñooy caméraman yi ñu ko àndal ak mbooleem koo xam ne acteur nga boo xam ne dugal nga sa loxo ci combat bi jàppale ñu ko au nom des communicateurs ñu ngi lay sant di la gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu